ragalal yalla li nga xane ne motti sa diina ma di wax toujours ne gor gi jox outi soxna nga ñew bayyi buntu kër yëpp ñew benn buntu kër feug ne soxna la bëgg ñu ne la nangul nañ la xalé bi ne la bëgg na baat bo boko ko bo méré da nga sétat baat bobulé nga sét yow itam waa ji dafa bàyyi ñëpp ñëw sa buntu kër ne la bëgg naa la ñaata buntu kër la bàyyi ñaata xale la bàyyi ñaata ñaata ñaata yow itam boo meree war nga seet loolu ba doo mer mukk mer mi tar nga ne ko mosuma la defal dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam condamné na jigéen ñi bés mooy leen dem naa safara fekk jigéen ñi bari fa nday Aysa ne koy yaa rasulallah lu waral loolu mu ne ko yéen dey da ngeen am benn jikko boo xam ne jikko bu doy waar la ci yéen loo ci defal nit bu la meree rek ne moo soma defal lu baax bu ko defee lam defoon yëpp yàqu loolu ñu di ko moytu parce que day yàq ay yiw day yàq ay xéwal day yàq ngënalal yàlla dal naa mu'tasim ibnu abada ca buuri andalusiya dafa amoon benn soxnaam def ko bëggoon ba escalier bi mu naan yéeg ci étage bi daf ko ko defaloon or defal ko ko or ne ko escalier bi kenn du fi jaar ku dul yow ñu dem ba jamono metti ñu daaneel nguur ga tëj leen ci benn dëkk bi naan axamaat ndaw sa nekk moom it mu sonn ba mu yàgg mu ne ko ah su may mbokk waxoon nañ ma ne su ma seeyee fii lay mujj xanaa fàtte nga bés ba la escalier or di bour yow rek ya kenu jaar ken du ci jaar ndaw si dal di noppi ne ko lalu may de dot mo xat lu ñaaw jeme ko ci yow lolou am solo la suñu yaay yu bax ya suñu yaay yu bax ya di soxna yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam dina koy waxale toujours sen keur ya du doon kër goo xam ne lekk bari woon na fa naan bariwu lekk bariwu fa woon tan lañ daan lekk daanu neex ndax koo xam ne da nga am ñaari weer cin du tàkk sa kër ñu muñ ko ñu laaj nday Aysa ne ko lu ngeen daan dundee mu ne tàndar ma joo xam day wow koŋŋ te ñuul léeg-léegaan ñu ratt ay soow may ñu léeg-léegaan ñu ratt ay soow may ñu waaye kër googu la muy métti metti métti fekk nañ fa yàlla joo xam ne tax nañu fàtte méttitu kër ga fekk nañ fa xol bu yaatu xol boo xam ne fees na dell ak mbëggeel fees na dell ak yërmande yonent bi sallallahu alayhi sallam jigéen ñi nettali nañ ne daan na toog ci biir këram di fóot ay yére ci waa këram di defar dàllam di leen dimbale ci seen liggéeyu kër yi di leen jàppale ci métti yi léeg-léeg nga gis góor goo xam ne bu nee ci kër du def dara waaye bu doomam di jooy sax siide na ko fop fekk na yaay ma ngi ca waañ wa yaay ma ngi ca xolli soble ba yaay ma ngi ca métti waaye waaye fop ko nax ko xale bi miin la fop ko bàmbaane ko xale bi miin la yaa ko jur am na ñoo xam ne buñ lay woo siide nañ sax woo la woo bu neex. ci gëdd lañ lay xoo ci doole lañ lay xoo déedéet du noonu fokk ñu defaraat suñuy langage ak suñuy soxna suñuy comportement ak suñuy soxna yërmande guñ leen dencal nga xam ne comme ni ma ko waxee ci gannaaw boo tukkee sa soxna yëpp tiit boo boo gëjee ci ñoom ñëpp tiit te dara du ko maye lu mooy jikko ju rafet yonent bi sallallahu alayhi ba saxaaba yi ba jigéen ñi ñëwee ne ko yokkal ñu dépense amoowoon ñuy muñ léegi am nga yokkal dépense mooy leen déedéet man ket ni ma bëgg a dundee laa bëgg ngeen dundee kook man ndax lastu naka ahadin min nisaa bokkule nag jigéen ñi or taxul ngeen ñëw fi jamaa taxul ngeen ñëw fi yére yu rafet ba jéggi daya taxul ngeen ñëw fi yéen li tax ngeen ñëw fi ngeen nekk modelu jigéen ba pencam yàlla aaye ba wàcc ne ko waxal sa jigéen ñi bu fekkee ne xat leen tax a jóg nga waajal leen ñu dem tama jox la ñeneen ba ñëwee wax ko Ndeye Aysa mu ne tànn naa yàllaa ak ab yonentam ñu wax ko soxnaam yëpp ñu ne tànn nañ yàlla ak ab yonentam bokkut ci mbaax teg sa jëkkër lu mu manut waaye bokkut ci mbaaxit man dara bañ ko doo ko def góor gu baax lépp lu man dana ko def def ba def loo manut sax moo war góor waaye bokk ci mbaaxi di laaj lu ta nekk xaritoo dana yàqu nga laaj lu ta nekk xaritoo dana yàqu nga man te la nga man nga siide ko def mu koy defal boo defalu say mbokk boo defalu say njaboot boo defalu say soxna kon ci loolu ci la ñuy xamee ne lislaam diina bu mat la diina bu complete la diina ju nite la diina la joo xam ne du nangu mukk nit ay jikkoom di suufee ndax nit mboolem lu yàlla bind nit a ci gën a kawe te kaweeg nit du dara lu mooy jëfe jëfe xelam kaweeg nit du dara lu mooy jëfee loo xam ne ku ko dégg gërëm ko ca sant ko ca salafu saalih dañ naan tànnal seen yu góor yi seen doom yi jigéen yi jëkkër dañ naan tànnal seen doom yu جيجيني جكر دلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه تي ناي عفصه ناي عفصه دفا ام دفا ام جكر جكر جينا ادنا مو غارال كو عمر مو غارال كو ابو بكر الصديق نيكو خنا دو نيوما مايلا حفصه ابو بكر نوبي مو نيو تي عثمان نيكو عثمان خنا دو نيوما مايلا حفصه Ousmane noppi dañ naan gaaral seen doom yu jigéen yi ay nit ñu baax ndax ñu mën a am sët yu baax mën a am it sëy bu dal ndax góor gu mat góor ci jikko ci gëm ci pas-pas doo sëy ak moom mukk lu dul am nga bonheur doo sëy moom mukk lu dul am nga jàmme àddina ak jàmme àlaaxira te loolu rek la ñu sëy ba loolu amee yëfee naqadi Omar Omar accès ko yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko sama ñaari mbokk yi dama lay kalaamee ñoom dama leen gaaral pour may leen jabar kenn waxuma ci dara yonentu ne ko kan la mu ne ko Hafsata mu ne ko Hafsata dana am ku gën Aboubacar dana am ku gën Ousmane dal ne ko may ma ko ñu may ko Hafsata radiyallahu anha ba xabaar ba ñëwee ci ñaar ñi Aboubacar ne man de boo gisee waxuma la woon dara. dañu toog bés yonentu tudd xafsata xosmaan itam mu dama toog bés yonentu tudd xafsata te ñun lépp lu yonentu tudd foofu dootuñ fa jaarati sàkka di bëgg ndax noonu la leen yonentu yare noonu la leen alquran itam yare noonu la leen sunna yare ñu doon xaar nag bu yonentu takkut ñu soog a déclaré suñu mbëggeel waaye yonentu bëgg na kon lii la waaye du leneen xoolal ma jooju jikko ju kawee may ko doomu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa loolu moo tax ci biir sëy l'islam limité ko góor bu baree ba bari ñeent doy na ko loolu la yàlla wax am na benn jigéen wala benn góor bu mos a ñëw am nag ay soxna yu bari kuñ naan Fayruz Daylami dafa ñëw fekk ñaari jigéen yu bokk ndey ak baay la takk ñaari jigéen yu bokk ndey ak baay ba mu leen takkee yonent bi ne ko ñii luñ bokk mu ne ko ñoo bokk ndey ak baay mu ne ko fasal kenn ki ki ci des nga garde ko loo tax lislaam am ci biir sëy yu mu xaraamal nit boo ko xasee takk ndeyam daf lay xaraam nit boo ko xasee takk doomu jiitleem ji mu ëndaale mu ju jigéen xaraam na la boole ñaari ñaari sœur xaraam na ndax dama bëgg kër gi nekk atmosphère jàmm toujours ba lépp loo xam ne da koy ñaari nit ma bëgg mu ne ko kii bul sëy moom parce que amul dara yoo yonent ma wax de kële bul see moom ndax day dóore dóor yu métti day dóore dóor yu métti ñu yegg ne bon ayibu góor mooy doo joxe boole koog dóor doo joxe ba pare di di dóore doo joxe ba pare di saaga doo joxe ba pare di di di di di wax lu kenn xamut loolu baaxut loolu baaxut jigéen ñu bari dañ koy jooy su ma jëkkër du ma jox dara su ma jëkkër lu ma ko laaj mu bañ am na ñoo xam ne man mooy ngoro waaye bu ngoro ga jeexee jexna liñu man moy tak gu xomb bo cété Dakar def investigation mboolem tak yu reuy yi nga xam dañ nan may nañ ko nangam ci million ñaari weer sey ba du ko am sey yi gëna gawa tas yëpp foofu lay bayeku motax tax sallallahu alayhi wasallam daan wax ne barkeb jigen moy mu gawa sey yomb ñu ko dugal néeg loolu li nga xam ne li am solo mune kuam ku am diine bu len ñewé di ñaan jabar may len ko su ngeen gërëmee diinam gërem ngorom gërem diinam pas-pasam def investigation ci jikko yi mala wax yépp mune su ngeen koko mayut aduna bu tukki mo taxaw ta aduna bu tukki nak yeen mag ñi waru len ko kon sey yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam na ci benen hadis mu ne jigéen danañ ko takk ngir ñeenti mbir danañ ko takk ngir taaram dafa rafet dañ ko takk ngir askanam dañ ko takk ngir ay way juram dañ ko takk ngir xaalis dañ ko takk ngir diina waaye jëlal yow booy ut jëlal borom diina ndax diina moo njëkk moo mucc diina moo njëkk moo mucc li njëkk nag mujj nag kenn waru ko desal gannaaw su ko defee ci yi nag suñu bëggee réew mi naat bëgg réew mi dem ci kanam nga xam ne dañuy dugg ci condition yoo xam ne jigéen ñi dañ xam seen place ci société bi góor ñi xam seen place ci société bi kenn ku nekk sa yitte mooy nu réew mi màggee ak nu dëkk bi baaxee fokk ñu defaraat fami joxaat famille gëdd joxaat famille li mu yeyoo di aar sëy di dimbalante ci sëy yi di am su amee kenn ku ne di véhiculer message su jàmm jigéen ñi ñu tàggat leen bañ xam ne seen sutura ak seen teraanga teraanga ñu sëy ñu teg ko ci méthode bu wér yar nit ñi yarul islaam mu mën a joxe meññitum xam yàlla ak meññitum fuglu yàlla ak meññitum bëgg yàlla kii sëy yëg na ci jaamu yàlla la nekk te moom mooy modelu ay doomam mooy référence ay doomam doom yi seen bàyyi ñooy seen référence yu góor ñi ñu jigéen ñi seen yaay ñooy seen référence sëy lépp a koy def waaye nit rek la yàlla teral teral ko ba sëyam dafa tedd balaa sëy fokk ñu yëgle ko balaa sëy fokk ñu am ñu ko taxawee balaa sëy fekk ñu yëgle ko ba ñëpp xam ko ba bu duggeeg nit ki ci néeg ñu xam ne jëkkëram la bu àndeeg moom te loxoom ñu xam ne jëkkëram la bu moom ci mbedd xam ne jëkkëram ndax dañu bañ njorte yu ñaaw di am ci famille yi te famille kenn koo ci ayibal ayibal nga famille bi yëpp kenn koo ci yàq yàq nga famille bi yëpp kenn ko ci wax lu bon yak nga famille bi yëpp su ko defee ñu organiser wat bu baax mën a yar doom yi mën contrôler télévision yi contrôler télévision yi bu baaxa baaxa baaxa baax a na jëfé waye ñu contrôler ko rek ndax lu jëfé ak lu yomb amul ci aduna ba am émission yi ci duggu ñu xam yeen émission la ñu contrôler portable yi contrôler internet yi contrôler Facebook yi ñu ngi ci jamono ju métti jamono ju jafe jamono joo xam ne kenn ku nekk yaa ngi tiit ndax yi liy yàq dafa bari lool te liy jafe liy defar néew lool ñu fexe ba xale yi ñu éduquer leen jàngal leen xirtal leen ci jàng njàng ma nag góor ña ak jigéen ñi ñëpp nañ ca bokk. xaccoo ci jikko yu kawe xaccoo ci jikko yu màgg yi ñu fexe bi contrôler xale yi ndax ñu ngi julli ndax ñu ngi jàpp ndax ñu ngi respecté way jur yi soo gisee sax sa doom bu góor xam nga ñaare doom yu góor yi bàyyi la ragal doom yu jigéen yi yaay yi la ñuy ragal léeg-léeg mu nekk partenaire doom yu góor yi ànd ak seen yaay doom yu jigéen yi ànd ak seen pap division boobu nañ fexe bu mu am ci kër yi na ñëpp bëgg bàyyi. ñëpp xormaal baay ñëpp bëgg yaay ñëpp xormaal yaay yaay di contrôler même boo noyoo sa baay sax yenn noyoo yi boo ñëwee sa yaay corrigé la naa ah, bul noyootee sa papa nii sa papa da nga koy fonk de ko jox ñaari loxo soo mënee foon loxoom foonal loxoom suy wax day del déglu bul fexe mukk sa baat di gën a kawe sa baatu baay ndax amoo ku gën sa baay koo mën a màggal ci àdduna sa baay ca gën. boo gisee sa doom ji góor itam wax benn wax bu xaw a dérapage wu ci yaayam nga wax ko ne du nii sa yaay mii bu dul nag moom doo am moo la ëmb juróom-ñeenti weer bés bam lay ëmb imbi bés boobu dee sax ko gënal moo des ci kaw suuf ndax méttit aljannatu taxta aqdaamil ummahaat sa dem aljanna mu ngi ci sa suufi tànk yaay ngay contrôler ni ñuy waxee ak seeni nijaay di contrôler ni ñu wax ak seen morom yi bay amna ay langage yo xamni jaadul man bëgguma mukk naan père père deug le tuba père lay wax sax waye vraiment niñ koy waxe dafa dafa dafa dafa vulgaire trop papa ah papa oh dedet dafa gatt il faut que ñu xam nan lañuy waxe waxee wayjur ndax koo mën a ci aduna ko mana reel ci aduna wayjur a ci upp dole wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yalla ne na dogal na ci yow gannaaw bo ma gëmé di ma jaamu kep ko mën fonk fonkal say way jur fonkal say way jur bu len yemalé ken bëgg len sopp len tey xam nga ne bari na ay confiscation ci dëkk yi ay nit ñoo xam dañu naan dañu wote naan diina lañuy ñuy nang way doomi jambur jang ba ag fa nga wara jang ak nit jang métier kaye yaaya ngi wut kaye bàyyi ngi wut kaye ñëpp a ngi ciy jàpp dem ba nekk cadre benn nit confisqué la ci turu diina loo liggéey jox ko loo xam wax ko taqale koog sa say way jur taqale kook say mbokk mbokkam taqale koog lépp diina jàngalewul loolu diina jàngalewul loolu ngor jàngalewul loolu amul benn sëriñ ci Sénégal bu jàngale loolu sëriñ boo daan jël wirde ci ñoom dañ naan demal nga tàggu say way jur boo daan ñëw dama bëgg a ànd yow ci yàlla dañ laa demal nga tàggu say way jur waaye ànd ak nit ci diina fàtte say way jur fàtte sa baay fàtte say mbokk fàtte ñëpp ci turu diina dem sax bu sa bu sa sa baay waxee waxam comme ngelaw luy naaw bu keneen waxee nga def ba yaakaar ne yàlla moo wax déedéet loolu du noonu dafa bokk ci yàqute yi am ci réew mi te ñi muñ ko tudd te dañ ko war a tudd ñu bari tey yàq nañ ndaw ñi ci turu diina. te defarul len dañ len yak nit bokoy defar da ngay fexé digënté mo way jur mu nek digënté bu baax digënté moog ay mbokam nek digënté bu baax digënté moog boromam nek digënté bu baax digënté moog yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam digënté bu yar dafa met te dafa yàgg éducation bi gëna a mag ci jigéen moy éducation moy yar te éducation ñaata milliards lañu ñak ci éducation mais ba légui éduqué wuñu peut-être dañuy enseigner rek ndax éducation dëgg dëgg dëgg dëgg mooy defar nit ku mat nit nit di œuvre pour famille bi jëm ci kanam ci lañi mëna yaré génération bo xamné ne alquran mooy nekk seen yitte ak ñu bëgg yalla su ko defee xale bi ñu téla magal ci mom diina teel ko tamal julli teel ko tamal koor teel ko tamal wax ju bax muy muy mag du dégg yaay saga muy màgg du dégg bàyyi saaga mooy màgg du dégg tante saaga mu respecté yaayam su amee tante respecté ko al alxaalatu bi manzilatil ummi tanta moog yaay ñoo tolloo wàccuwaay lépp loo war ta wax sa yaay bu ko wax say say tante lépp loo war ta baay bu ko wax say bàjjen di julli si waxtu yu juróom sahaaba yi ak sahaabiyaat yi dañ naan tase ci jàkka yonent bi ba yonent bi Omar ne len waaw tee ñoo jël benn place jagleel ko jigen ñi ndax mo gën jigen ñi ak di riso ci buntu bi ñëwee leen nañ leen defal ben buntu tuddee ko Nisa babu Nisa ba legi bo demé ci jakka yonent bi sallallahu alayhi wasallam dang ko fa fek am jigen ño xamné sar yu bari ñu ko mokkale ci alquran ci dégg yonent di ko jàng di ko répété waaye ba nga xamné jigen ñu duñ xam jàkk duñ xam yoonu jàkk duñ xam dara ci alquran way wu xew ni man joué dëgg dëgg dëgg dëgg message su yiw message su mbaax yitteem du do rek fecc woy euh, xuloo jëwante diw lam am ñu am programme yu kawe benn tubaab day wax ne nit ñu tuuti ñi détails yu tuuti yi lañuy ñuy la ci la ñuy yend ci la añ boo demee fële ca turc ci cheikh bu mag bu Mouhamad Fathala Golan dafa yaraay taalibeem ba ñoom xamuñ discussion sunna ak bidaa ndax nee di discuter di discuter li sunna la li bidaa la dafay fekk ne da nga am programme da programme bu huit waaye fekk toujours yaa ngi ci programme bu mat programme dootoo talati dara te programme bi gën a rëy tey mooy pare fexe ba génne Sénégal ci gute gi mu nekk jafe-jafe yi xam ngeen ne bari na xat-xat yi bari na lépp lu ñu jéem bu nee ba ca kanam rek dañ naan dëgg dëgg dëgg liñ doon séntu du lii doon séntu lii baykat yaa ngi nii. gerte gi ñu bayoon mënuñ ko jaay problème am na te problème du problème état problème mu nit la nit kooku nag tant que defaruñ ko ba mu nekk nit liñ bëgg duñ ko am loolu nag lu mat a bàyyi xel xale bi jigéen ji góor gi ñu xiir leen ci li ñuy tuddee amalul xayri jëf yiw jëf ju baax lépp xay ñu di ko mooy trans ñu di ko moytu lépp loo xam ñu fexe ba bu mu am ci kër gi xale bi bu mu dégg mukk wax ju du dëgg ci yaayam bu mu dégg wax ju du dëgg ci baayam kor ñu moytu ko yaay bu mu or baay baay bu mu or yaay kenn ku ne di œuvre ci jikko yi gën a rafet jikko yi gën a kawe xale yi ñu réserver leen place ci jàkka ji xiirtal leen ci jàkka ji ñu la ñëw saxaaba yi seen doom yi dañ daan dem jàkka ñu leen di defar ba nakay ba tàyyi xasan ak xuseynu di ñëw di daanu mu bàyyi bar bi ñëw tungoom leen ba daf daa wax ne jàkka yi gën ci jàkka ji na am sappay góor am sappay jigéen am sappay xale sappay góor ñu mag ñi na na dend ak imaam sappay xale yi dend ak sappay mag ñi sappay jigéen nekk ci gannaaw nga xam ne bon jigéen nekku doon ku coupé de sa société waaye daf daan daf daan agir ci société bi lépp lu ne lu baax ñu gis ko ci lépp lu ne yiwee ñu gis ko ci suñ daan def euh, cotisation bilaal nekk leen ne bu yonantu julliwaan julli tabaski wala julli korite buñ paree ba yonantu di dem di waar jigéen ñi nga xaay dañu gis baaxu jigéen naan leen saraxe leen participer leen ci liggéey yàlla ne day gis jigéen ñi ñii di génn seen bracelet yi ñii di dindi seen long-long yi ñii di génn seen jaaru yi bilaal ne ma di ko dugal ci ngise gi ñu nan li partisipasi suñu participation ci liggéeyu lislaam mo suñu dess gannaaw mo suñu tardé mo suñu dess gannaaw mo suñu tardé yéen daan sumbu liggéey yu mag yi daan joxe joxe sen bakkan joxe sen deret yéen daan xirtal goor ñi sax ba duñ andi lu haram ci kër yi sahabi yaar yi dañ nan wax sen soxna sen jëkër yi buñ xeyan di wuti dépense bo ñëw ba ci buntu kër gi daf la daan iyyaka iyyaka wal harama. فإننا نستطيع أن نصبر على الجوع ولا نستطيع أن نصبر على النار wattul andi ci kër gi lu xaram wattul andi ci kër gi loo moomut wattul andi ci kër gi loo xam ne yàlla daf ma ci mere man man naa muñ xiif waaye mañu mënu muñ dee dem dem safara góor ñi am fit jigéen ñi amal leen fit góor ñi am yaakaar jigéen ñi amal leen yaakaar góor ñi di véhiculer pour kenn ku nekk na may fexee ba sama soxna yëg ne dëgg dëgg dugg na ci loxol góor gu baax dugg na ci loxol góor gu yiwee dugg na ci loxol góor gu mat góor moo tax yonent bi sallallahu alayhi bés tagg na goroom di abalance tagg ko tagg yoo xam ne ba léegi boo koy liir da ngay bëgg a nekk abalance ne abalance yaa baax abalance yaay gor abalance dénk naa la sama doom yërëm nga ko jàppale nga ko fitnaaloo ko xataloo ko mettitaloo ko abal asia baax ku dem ba yonent dem ba wax loolu loolu rëy na lool sallallahu alayhi wa ndax nit ñi mu de man mu de kum mën doon danga bëgg sa doom yu jigéen am jàmm ndax ñaare góor ñi yàlla day def affection ci seen doom yu jigéen yi te dañ ciy fiir lool góor dafa fiir ci doomam ju jigéen kon ku ko ko yoreel war nga ko ko yoreel ci yiwe war nga ko ko yoreel ci mbaax war nga ko yoral ci sell war nga ko yoral ci lépp loo xam ne yàlla gërëm na ko dafa am benn éducateur man xam naa ko dafa xëy dajale ay doomam ak seen yaay yi ne leen ba may ànd ak seen yaay yéen gone yu tuuti ngeen juddoogu leen waaye ba ngeen juddoog léegi am na ci yéen ñu mat am ñaar fukki at ku ci mos a dégg ma saaga seen yaay nekkati loxoom ku ci mos a dégg sax saaga génn ci sama gémmiñ nekkati loxoom 5000 francs ngi nii te 5000 francs bi dama koy bàyyi ngeen réfléchir réfléchir ban bés lañ mos a dégg ku góor gi saaga waaye dañ ko mujj ne ko dencal sa 5000 mosu ñu dégg nga saaga kon fokk yaay jiitu ci mbaax gi yaay jiitu ci jàpp yaay jiitu ci julli ci waxtu yaay fekk làmmeñ yaay fekk sa jal xefam yaay sol jot yaay di dox njub yaay di dox mbaax xale bi màgg ci man ci roy wolof nee na kéwél du tëb mukk doom ju bët